diwaanu Guédiawaye TV li ma mën a wax rek mooy li ñu fi ñëwoon tey mooy leeral décision bi nga xam ne tribunal bi nekk Suisse daf ko jël tribunal bi li mu jël li mu leer si boppu Sénégal yi ak boppu waa Guédiawaye amul fenn fu tribunal bind ne Jamil Faye dafa tooñ wala Jamil ak jàpp am na dañoo tooñ loolu la tribunal bi wax dafa dafa woon benn tribunal bu décidé woon fii Dakar bu CNRA muy tribunal fédération tribunal boobu dafa waxoon li mu wax bi ñu dëgg ñu wax pare dafa ne association bi yéen yéen a tooñ parce que ni ngeen taggee contrat bi du moom ci wax bi ñuy si biir loolu aussi tribunal boobu daal ne ñun dañu ñëw laaj ne leen yaa kii de moo leen tooñ dafa dagg contrat bi yéen a ngi leen wax ñun ñu ne ko ñun soxla ñu daal wax. loolu jaaxal na trop parce que nit képp ku ñu mës a dégg ñuy wax wala ñuy bind yàgg nañu dégg ñu naan euh, équipe bi moo ñu ñor mais équipe bi moo ñu ñor mooy dem wala ñun ñu keneen ku mun a yóbbu mais balaa loolu di am il faut ñu respecter contrat bi muy article 4 point 8 moo tax décision bi taas jël xaw ñu jaaxal. ñu ñëw tey pour leeral Sénégal yi leeral waa Guédiawaye si ñeenti ko benn bi mooy ki nga xam ne moo jëloon dogal boobu fii Sénégal bi ñu demee euh, Suisse dañoo jaaxlewoo trop ñu gis ko moom moo ñëw moom ñu jël dogal ñëw toog ne day témoigné moom mooy ne man maa dogaloon nii mayaat leen aussi ma gën leen waxaat bi ma waxoon comme ça ko jàpp décider beneen bi mooy si biir poñ boobu rek moom mooy ne dafa am aussi benn avocat boo xam ne Prosper Amégal la tudd dëkk Cameroun kooku ñëpp xam nañ diggante la CRC waaw ñun dañoo bindoon tribunal ne kii bëgguñu mu atte ñu te li may wax nii mu ngi sama ordinateur ku ko soxla nga ñu ko wan ñu ne ñu jox nañu preuve ñu expliqué leen ñoom ñaar ñu jaar yëpp ak même contrat bi nga doon am xam marché moo ko doon bëgg amal jàmbaar moom mu ko doon dox tur bi daal ah yéen daal li ngeen wax euh, mu matul bëri daal donc waa ji foog ñu bàyyi ko mu wax donc loolu ñu xaw a am njaaxal euh, tuuti si décision na ko beneen ñu wax ko ñu ne association bi dafa déposé benn fiche xam ne moom mooy li ñuy wax fiche d'engagement fiche boobu yéen ñëpp di gis ngeen ne ñoom nee nañu 31 octobre lañ ko déposé.

dama la ko jël ça veut dire ñoom ñëpp jot nañu kayit bi balaa koy Ablaye Sall ko yónnee li tubaab koy wax faux usage de faux loolu nag mënuñ ko nangu moo taxoon ñu ko delloo si ñu xam ne décision bi gars yi jël daf ñoo xaw a jaax waaw leneen si topp mooy décision bi fédération bi jël amul bon droit jël ko parce que ñun dañoo nekkoon suñu contrat.

waaw ne ko yow nii nga war a dëggalee loolu mooy influence bi beneen quatrième point bi ñu doon wax aussi mooy wàllu tribunal bi décidé woon damay wax si ñaari côté tribunal dafa ne benn moom bu décidé balaa ñëpp di génn loolu bi mën naa ko wax article vingt boo ko wax tribunal wax nañ leen dafa ne moom bu décidé balaa ñëpp di génn salle dañoo war a signé li ñuy wax PV PV mooy mooy këyit boo xam ne.

donc si biir loolu ñu ne tey bu ñu génnee fii danañ topp lii professionnel ndax daf ñoo yoreel ay millions yoo xam ne ñoo ko moom bu ñu fubalee nekk deuxième dañu amoon 10 millions yoo xam ne dañu ko war a jox léegi mat ñaari at dañu ñu ko jox léegi nag huissier yi leen yónni ak suñu avocat fay suñu xaalis fédération bi tamit noonu yore nañu lu mat 600 000 francs yoo xam ne danañu ko fay bu subaa da nga leen yónnee huissier association nag yoroon nañu juróom benn million parce que li ñu doon wax suñu wax ñu naa ah, dégg naa dañ daan taas mais dañ ne dañoo war a fay ñu un million association bi mais association dañu war a fay juróom benn million ñoom it bu subaa dañ leen yónnee huissier ñu fay suñu xaalis leen li stock bi doon wax mooy wàllu projet sport ndax dañuy continuer wala dañuy bàyyi li may wax ba leer mooy football bi kenn mënu si génne ñu ñu bañ a yàq kenn mënu si génne parce que suñuy dundal football lañu bokk te football la ñuy dundal aussi loo xam ne da lay ko doo doo ko ne dañuy am club wala dañuy nangu association li wax wax il faut ñu delluwaat ba xam li ñuy wax amaana ñoom dañ ne ne eh, bàyyi leen li ngeen dem jaayi gerte peut-être déglu

jeexagul te danañ ko xeex fu mu war a yem ndax danañ ko gañe wala dañ ko gañe eggaguñ si mais wóor nañ suñu bopp si mu wax bu ñu weddee si lii tamit même bu ñu nelaw parce que ñoo xam ne ñoo nekk si dëgg te dama doon wax depuis le début ba tey ba suba kenn bindagul fenn jëriñ fay moo tooñ li ñu wax dañu association day tooñ waaye ki xam ne moo tooñ ah ñu war ko teg ay daal ba pare ñoo dañ koy jox ndàmpaay man de xamante lu mu doon voilà jërëjëf